moo tax Maodo daan na wax ni boo consulter texte yi ba noppi bala ngaa commenter interroger le phénomène yi te phénomène yi ñaare ci gën a jege mu di az-zaman wal makan le temps et l'espace l'espace et le temps boo leen dul interroger boo consulter texte yi du la jëriñ tous ndax na ngay poser problème ci siècle bu jëkk ba boo ko ni poser ci kanamu exigence su troisième millénaire ci kàmb nga jëm du sotti parce que mooy doxal temps xam na ko mooy organiser espace xam na ko bu fekkee ni ci tex yi rekk nga compter doo dem moo tax ak paab yi ñu tere leen pour ñu tënku ci madahib yi parce que madahib yi seen borom dafa bari lu ñuy jëfandikoo tex te du ñu interroger phénomène waaw looloo tax ñu tere leen looloo tax ñu tere leen pour ñuy tënku ci madhab waaw lu mat bàyyi xel la moo tax Maodo wax na ko laa tax tarru laa taxtaru bi dawahiri nusuus waaw nee na biti texte noonu rekk kese kese nee na doxul waaw nee na doxul